di Bah Diakhaté waxkatu ñaaw yooyu dafkatu lu ñaaw yooyu di Bah Diakhaté ak espèce imam boobu dafa mel nag jël nañ glace gars yi jël nañ glace de Bah Diakhaté jënd na glace espèce imam boobu tamit jënd na glace parce que Bah Diakhaté sax boo seetee dafa dafa dafa gën a dugal imam bi dafa rocceeku daal di bëmëx imam bi nee na daal moom li mu wax garaawul parce que waxul ak Ousmane que moom waa Pastef la waxal. imam bi lu mu wax moo garaaw baa Diakhaté moo di kàddu yi Bah Diakhaté nee na moom li mu wax garaawul parce que waxul ak Ousmane Sonko waa Pastef la doon waxal baa Diakhaté nee na imaam bi lu mu wax moo garaaw baa Diakhaté dafa dugal imaam bi <laughs> non nga caaxaan baaxul quoi caaxaan baaxul mais lii yëpp bu ngeen gisee lii yëpp résultat la dafa nekk résultat. résultat wu benn doxalin boo xamante ne mooy dafa yàgg ci dëkk bi mooy tooñ te boo tooñee dara du la ci fekk résultat boobu noonu moom la Bah Diakhaté wane nii ak imam boobu xam bu ñu demee ba nit ki nit koo xamante ne moom dafay woote woo diine ah, bu waxee ci diine gaa yi di daanu ay leer ah il se permet muy def yu mel nii jàpp ne dara du ko ci fekk parce que parce que caaxaan bi ne caaxaan bi ne ci réew mi moo waral loolu. résultat yi loolu loolu nag moo nekk résultat yi ñu gis nii ay résultat la rek ci doxalin bu ñaaw ak bu naa feq bi nga xamante ne moo ne ci réew mi yàgg fii ñu koy bay bayal di ko toléré Bah Diakhaté nag nee na rocceeku na moom Bah Diakhaté rocceeku na ba set waaw dellu maanaam génn na ba set ci li mu waxoon moom Bah Diakhaté génn na ci ba set bref dama ko bëggoon a jàllale rek loolu pour maanaam nit ñu xam ko ñu ci jàngat que ni tamit ñoom c'est-à-dire au-delà de bon bi nga xamante ne ñoom bon nañ ko ñoom seen bon gi nga xamante ne moom lañ nekkee cest à yàq moo leen taxoon a jóg loolu dama bëgg ñu jàngat ko ci tamit aussi dama bëgg sénégalais ñu xam ni lii Bah def ak espèce u imam boobu noonu liñ def noonu loolu cest à li muy wane tamit mooy yàq gi nga xamante ne moom lañ nekkee ci réew mi ñoom ak seen i morom duñu ay waxatu dëgg ay tooñkat lañ te ay yàqkat lañ parce que li ñu wax noonu yëpp boo gisee tey ñu dellu siwaat ci ginnaaw parce que saboté moo leen taxoon a jóg yàq moo leen taxoon a jóg parce que dafa amoon ñu leen ngemboon nekk ci réew mi ngemb leen dégg nga ñu daan def di wax di tuumaal gor ñi te dara du leen ci fekk. seytaane jaay leen nag bañ dem ba jàpp ni ñooñu ba tey ñoo ngi fi wala ñooñu c'est-à-dire jógewuñu fi ñu continuer ci lañ nekkoon te gis nga mu ngi nii tey voilà nangu ñu assumer li nga xamante ne moom la ñu wax bref ma buggoon ci wax tamit ma buggoon ci boole tamit euh, patriotes yi lu ma leen di ñaan la nag yéen patriotes yi dama leen koy ñaan su ma sañoon patriotes yi. parce que ñun Sénégal moo ñu mës a intéressé combat bi Sénégal moo tax ñu dugg ci bëgg réew mi dégg nga bëgg réew mi baax bëgg réew mi jub valeurs yi nga xamante ne sunu maam yi ñoo ñu ko bàyyi muy ay valeurs yu baax doon valeurs yi gën ci valeurs yi ñun sénégalais yi. ñun suñu xeex loolu la woon pour ñu delloosiwaat Sénégal ci valeurs yooyu nga xamante ne moom la ñu maam yi bàyyee woon mu doon ay valeurs yi gën ndax diine da ko rafetlu te raison dafa accepter valeur yi nga xamante ne moom la Sénégalais yi di di woote ba tax na man patriote yi man man man yenn patriote yi dama leen di ñaan yenn patriote yi yaa ngi dégg ñu jëmmal loolu li ma bëgg a wax foofu mooy. parce que depuis li fi li fi li fi xew ci réew mi bi mu fi dalee xew ba tey dafa ay position yu yenn patriotes yi doon jël wala patriotes yi daan ko jël mu doon ay mbir yu ñu doon gis réew mi di ko seetlu ci réew mi yaa ngi dégg mu jóge koo ci ñenn ñi di ñëw si sénégalais wala muy ñëw si ñun ñu doon kan naxarlu ba yenn saa sax dinaa yëkkati ay kàddu wala di maanaam di am ay position yu daan jël par rapport ak ñenn ñi te loolu du sénégalais. ñun loolu du ñun ñun sénégalais yi loolu du ñun yarewuñ ñu ko santuñ ñu ko suñuy waajur yarewuñ ñu ko te santuñ ñu ko xëy na nag situation moo demoon ba toll foofu parce que àdduna ay contexte la mooy lu wax toujours rek nga àdduna contexte la moo waral ngeen di yenn saa ngeen dégg nit taxaw wax benn affaire contexte bi changé mu wax leneen parce que àdduna ay contexte la ñun ñu ñun taxaw nañ fi am benn position bu ñu doon jël wala benn am taxawaay bu ñu doon am par rapport ak yenn ci kilifa yi nekk ci réew mi mais loolu dara warul ko woon loolu contexte. te contexte boobu noonu moi je pense que ñëpp comprendre nañ ko mooy <clears throat> dafa am ñu nekkoon ci mi ñu dénkoon leen nguur gi ñu jëloon nguur gi def ko seen yëfi bopp jàpp ni seen i bàyyi ñoo doon jënd jënd jënd yu jóge ci marché bi ñoo jox leen ko ba tax na ci def lu leen neex dem ba di ci rey ay doomu Sénégal loolu nag ñun mënuñu taxaw di ko seetaan fa la ñu jóg maanaam. assumer ci li nga xamante ne mooy suñu suñu responsabilité mooy jug xeex ak ñoom ngir loolu dakk te ci loolu lañ nekkoon te ci loolu lañ nekkoon loolu nag am na am lu mu juróon am lu mu waraloon dégg nga <coughs> ba mu amoon yu ñu xew yu xew suñu diggante ak ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa diine mais loolu ñun xam nañ ni du suñu responsabilité xam nañ ni. suñuy parent yarewuñu ko te jàngaluñu ko te santuñu ko tamit ba tax na <clears throat> comme que tey lépp leer na yàlla jox nañu dëgg ñun ñun ñi nga xamante ne ñoo taxawoon di xeex ak nguur gi fi nekk ci fitna bi mu doon teg sénégalais yi ba ñu bëri woon comprendre wuñu ko woon tey yàlla wane na ni ñun ñoo nekkoon ci dëgg yàlla wane na ni yaa ngi dëgg ñun li naan xeex yaa ngi dëgg moo jaroon a xeex te dafa jaroon a xeex. tey ñu ngi sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin yàlla jox nañu dëgg léegi nag dañuy delloo cest li nga xamante ne moo maanaam ñun maanaam affaire bi dañ koy delloo maanaam ci place am c'est-à-dire barki démb am na benn vidéo bu ngeen gis ci bi kilifa sunu kilifa googu doon wax te doon sunu bàyyi ñu koy nuyu bu baax baax di koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér mooy Serigne Cheikh Maye Niass gis ngeen. keroog bi mu toogee di wax ba am ay kàddu yu mu yëkkati waaye kàddu yooyu ñun ñëpp gis nañ li ko waraloon parce que loolu moo mës a xew dañ ñoo mës a ñoom maanaam dafa am ay nit yu fi nekkoon daan dem ci ñoom di yàq deru askan bi ngir seeni i propre intérêt parce que ay politiciens lañ di jaxase kilifa diine yi ci réew mi ak askanu Sénégal ak doomu Sénégal yi parce que ay politiciens lañ. te yàlla weer na leen yàlla wane na lépp ba mu leer barki démb bi suñu baay boobu di suñu sëriñ di seex Maye Niass di wax gis nañ yàlla wan nañu clairement <clears throat> li nga xamante ne moo waroon problème bi amoon suñu diggante ak ñoom te du te mosul doon problème sax mosul doon problème ñun mosuñoo am problème ak kilifa diine yi dafa amoon ay ñoo xamante ne nii ay nit yu bon lañu doonoon ay politiciens làqu ci biir këru këru diine yi dégg nga di jëfandikoo ñoom jege biñ jege kilifa yi. wala bokk bi ñu bokk ak kilifa yi daan jaxase kilifa yi ak askan bi te yàlla weer na leen mooy keroog bi sëñ Maye Niass yéen ñëpp gis ngeen ni gars yi ñoo ko doon wax loo dañoo bind ay note di ko jox pour mu wax li nga xamante ne ñoom moom lañ bëgg mu wax par rapport ak ñoom seen position bi ñu am ci réew mi wala bi ñu am ci li nga xamante ne mooy politique bi parce que noonu la mës a demee ñun loolu dañ ko yàgg dénoncé loolu ñun yàgg nañ ko dénoncé que ni kilifa ñooy seen i noonu yu njëkk ñoo leen di nëbb dëkk bi dëgg bi ñoo leen di nëbb li xew ci réew mi ba pare di leen jottalee ay waxu nguur gi fi newoon di fàtt doomu Sénégal yi di leen jottalee ay waxu nguur gi fi newoon doon teg Sénégalais yi fitna te loolu keroog yàlla weer na leen yàlla wane na ko ci keroog bi sëriñ sunu sëriñ boobu Maye ñas di wax ñëpp gis nañ dañ leen doon manipuler duut ni nag ñoom dañoo waay di déedéet kilifa diine yi duut ni dañoo waay di ay nit yu irresponsable lañ déedéet du loolu yëpp dafa fekk ne gis nga sagesse li ñuy wooyee sagesse xam nu ñu koy waxee ci olof sagesse xam nu mu tudd ci baat bi ni mu tudd ci olof en tubaab bi sagesse la koy wooye gis nga sagesse bu nekkee ci doomu aadama bu nekkee ci nit ah mooy permettre nit kooku den saa yi day mel ni xaru yar te fekk ni du xaru yar te fekk ni waaye duwul mais sagesse bi nga xamante ne moom la yàlla def ci moom. sagesse boobu mooy mooy mooy cest à mooy tax ba nit ñi di leen teg yenn yi wala di leen jëmale ci yenn yi loolu kese la parce que c'est ñoom c'est pas un hasard yàlla jël leen tànn leen def leen kilifa kilifa nit du ko doon man sama genre gi mënuñoo jékki-jékki rek doon kilifa kilifa bala nga ko doon il faut que yàlla def ci yow teey def ci yow dal def ci yow sagesse ba ku la gis jàpp ne yow da ngaa waye de ba ku la gis jàpp maanaam nit mën laa jël di la maanaam la defloo yenn yi loolu kese nekk ci kilifa diine yi. sagesse bi nga xamante ne moom la yàlla def ci ñoom ñoom kilifa diina ñi sagesse boobu moo tax ñenn ñi di leen yàpp sax ba di jël yenn yi wala di di yëkkati yenn di ko teg seen kaw te du mujj fenn loolu nag moo feeñ ci Cheikh Maye Niass Cheikh Maye ñas sagesse bi yàlla def ci moom moo waral mu jël ñëpp maanaam def kóolute ci ñëpp wóolu ñëpp ba nit ñi ñëw di ko di ko maanaam di ko kall kallee di ko waxloo wala di ko defloo te fekk ni ñoom kall kallewuñu sëñ bi de ñoom seen bopp la ñuy kall kallee ndax tey weer na leen tey xam nañ ne ñi wër Cheikh Maye Niass duñ ay nit yu baax waa ñeseen xam nañ ko tey leer na naññ yàlla weer na leen moo tax may woo patriote yi en tout am man personnellement ci man laa koy tàmbalee parce que ku digle sangu da ngay set man de maay jéggalu Cheikh Maye ñas bu fekkee am na benn xalaat bu ñaaw bu mu mës am ci moom donte mosuma yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci moom te du ko def mais bu fekkee am na benn xalaat bu ñaaw boo xamante ne man mos naa ko am ci Cheikh Maye Niass maa ngi koy jéggalu maa ngi ko koy jéggalu te sañoon patriote yëpp ñu def loolu ndax loolu mooy Sénégal ñun loolu la ñu suñuy maam bàyyee kilifa dañ koy bàyyi ci palaasu kilifa dañ koy bàyyi ci palaasu kilifa kon patriotes yi nañu c'est-à-dire nañu dellu ñun suñu place en tant que taalibe ak doom te delloo mag ñi ci place bi nga xamante ne mooy mag mooy maanaam mooy palaasu kilifa ak baay bi nga xamante ne nii moom la leen yàlla def parce que léegi leer na ne que ñoom ñi leen wër ñoo maanaam ñoo leen doon jaxaseeg askan bi yàlla wane na ko ci keroog bi Cheikh Maye Niass toogee di wax naan Bah Diakhaté xaritam la te ñun ñëpp xam nañ ni xarit ñaa ñu bokk jikko ñoo koy doon ñaa ñu bokk gi gis àdduna ñoo koy doon ñaa ñu bokk tolluwaay ñoo koy doon Bah Diakhaté du du xaritu Cheikh Maye Niass mënul doon xaritam ay nit ñoo ko wax loolu ay nit ñoo ko puus ba mu wax lu mel noonu parce que ñoom. seen sagesse yegg na ci voilà ñëpp la ñuy jox nopp ñëpp la ñuy déglu te ñëpp la ñuy am ci ñoom kóolute loolu mooy kilifa donc patriotes yi en tout cas man dama la koy ñaanaa man dama la koy ñaan personnellement dama la koy ñaan patriotes yi nañu dellu ñu ñu c'est-à-dire ñu ñu protéger ñu défendre ki nga xamante ne mooy Cheikh Maye Niass loolu mooy suñu wareef ñun parce que yàlla leeral na lépp kon patriotes yi nañ leen dellu ñu préserver ñu protéger. ñu défendre ki nga xamante ne mooy Cheikh Maye Niass def ko def ko def ko ci kilifa diine yu nekk Sénégal yëpp ñu protéger leen parce que ay valeur lañ ci réew mii danoo am njariñ ci askan bi donte ñu leen wër da mun mën nañoo sikki sàkk ñoom seen yéene yu rafet ak seen yéene yu baax parce que loolu moo feeñ loolu moo feeñ victoire bi nga xamante ne nag yàlla jox nañu ko ñun patriotes yi dañ ko delloo yàlla man loolu ci loolu laa andi woo parce que man désormais ci loolu laa nekk ci loolu laa nekk. victoire bi ñu yàlla jox jox ñu ko keroog ci élection yi joxaat ñu ko keroog bi Maye Niass toogee di wax victoire loolu parce que victoire la li xew keroog bi Cheikh Maye Niass toogee di wax ndam la pour askanu Sénégal ndam la pour patriote yi kon ndam loolu ñu ko jël ñu delloo ko suñu borom bi nga xamante ne moo ñu ko jox. yaa ngi dëgg mooy ñu dellu siwaat dégg nga sukkaat suñuy óom ci kanamu suñu baay boobu di suñu sëriñ di Cheikh Maye Niass te danoo sa ñi nga xamante ne nag ñoo wër sëriñ si. nañ leen danoo sax parce que ñoom ñooy que ñoom ñooy nopp sëñ si si biti ñoom ñooy ay seen ñoom ñooy ñoom ñooy seen bët si bu ñu indilul information bi baax bi wala di leen wax dëgg gi nga xamante ne moo am ci pénc mi si seen tànk diis na ba duñ ko mën a xam wala di dem di ko gis donc ñun patriotes yi dañoo war a taxaw ni ñuy sàmmee réew mii ni ñuy taxawee pour sàmm suñu réew mii taxaw pour sàmm ko suñuy valeur ñun nañ taxaw noonu sàmmee noonu kilifa diine yi ci réew mi man ci la laa woo yéen patriotes yëpp ci la laa woo waaw